asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi amaat mbégte toog ci jataay bii nga xam ne dañ ciy sant sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool dolli ak wéram. ci woote liggéey bu am solo ba nga xam ne moo nekk ca daaray Lagan te Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke di jëwriñu kër Serigne Saliou di ko woote at mu jot moo tax ñu toog fii ci kër Serigne Saliou Mbacke Xaadimu Rasuul mu jëm ci julli jumaay Lagan la le 18 waaye góob tooli saañooy Lagan gaawu le 19. loolu moo tax Serigne bi nee na mi ngi ci njëkk soññi nag jëwriñ ji nga xam ne ku tuddu daara ja tudd ko di Alaaji Samiyal Sarr di jëwriñu daara ja waaye doonoon jëwriñu liggéey ba Serigne baa ngi ko ciy soññi di ci soññi mbooleem ay xaritam yëpp ak ay soppeem. ngóob mi mu lënkale ko ubbiteel jumaa ja ne moom woote ubbite jumaa sax du woon ay mbiram waaye nag ginnaaw dafa sësoog liggéey bi faw ñu yëgle ne loola la ñuy njëkk ba noppi soog a tàbbi ci liggéey ba kon sëriñ bi mi ngi koy yëgle bu baax a baax su ko defee nag jullit bu ne nu sàkku mu ñaanalal nu ko ci barkeb sëriñ bi loolee muy liggéey sunu borom nangul ko ko te yàggal ko fi lool kon ubbite jumaa ji moom la ñuy def ajuma incha allah le 18 buñ ca noppee it nag dañ cee daal di lënkale ngóobum saañuma ndax ku ne xam na ne waxtu wa jot na jumaa ji it waxtoom jot na moo tax ñoom ñaar ñu lënkale leen ndax mu doon ñaari taw tawfeex ci bokki taalibe yi ko mën a fekk si yëpp kon sëriñ baa ngi woote loolu muy ngóobum saañuma di ci tàll loxoom boobu sëriñ Saalihu daa tàllal te yaatal ko lool te daa wax ne du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal loolu it sëriñ Cheikh noonu rek lay doxee kon yaatalub sëriñ Saalihu boobu lay feddali ci mbokki taalibe yëpp mu di ko yëgal jullit ñëpp ak murit yëpp ak ñu bëgg liggéeyal sëriñ bi ñëpp sëriñ baa ngi leen ko yëgal ngoom moom gaaw lay doon incha allahu taala moom bu jumaa ji <coughs> ubbi ko rek ci ajjuma ji buñ ko julee ba noppi dañ tey daal di jokkale liggéey ba liggéey ba nag liggéey bu saaño la murid yi yàgg nañ faa ñëw yàgg nañoo xam nañ koy defee kon sëriñ baa ngi leen ci woo yéen ñëpp te ñaan sunu borom mu dajale ñu taw tawfeex te ñëpp ñëw ci jàmm te dellu ci jàmm ci barkeb sëriñ bi te liggéeyal sëriñ ba lu mu nangu sëriñ baa ngi woo bokk yëpp di woo xarit yi di dëkkandoo yi di woo am di rawatina nag dëkkandoo yi ndax barab lu fa gën a jege moo gën a yay kon la gën a jege lagan la sëriñ bi tàmbale ci woote bi waaye nag da koy lawal ba ci réew mi lépp ku ko man sëriñ baa ngi la koy yëgal te di la ci séentu te ñaan ñu la jël tawfiix asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yëpp te di leen siyaare di yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sunu kilifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saliou ko ñaanal yàlla nag suñu borom yàggal ko fi lool te ko fi lool te jàppale ko ci liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ba mu gën ci am ndam sunu kàddu nag yëkkati gi li ko waral mooy fàttali ngóobum saañu daaray lagan ñu jàpp ko incha allahu le 19 novembre bi ñu nekk ñu ciy woo mboolem taalibe bi yëpp ni ñu ko daan wootee woote bi nag ñu ngi ciy jiital Cheikh Abdou Latif Jenn mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa Jenn ak Serigne di Naar Jenn mi xalifab Serigne Naar ak njabootuk Serigne Serigne Issa Jenn gépp bàyyiwuñu kenn li ci woo itam njabootuk sëriñ Aliou Seck wanaar xam naa loolu sëriñ Fallou dina ci ñëw <coughs> ci leeral gi kon ñu tàmbali sunu boote rek di wax ni ñu ngi woo tund njenne lagan gépp bàyyi wunu kenn di ko tàmbalee ci njenne lagan xay mbayaar daarul mannaan naarga mesere daarey siidi curangeen cele eh, tewru ngaari daaru rahmaan daaru salaam niis xay barka baxdaat lansaar mbar Touba njenne bu dee fi fi Touba nag ñu ngi woote lan saar ci turu Serigne Cheikh Diop ca Ndande Fall ñuy woote di jiital ci woote bi Serigne Dame Faye ak ñi mu ko daan àndal ak njabel njabel gusaas ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak sëriñ Cheikh Ndak ginnaaw loolu nag ñu ngi beral ak cant jëwriñ Samuel Sarr mi nga xam ni ab taxawaayam ci liggéey bi rafet na lool ak féetewoo gum féetewoo daara ji ci ndigalul Serigne bi kon ñu di ko ci sant ñun taalibe yi ndax suñu laa ne woon na ku liggéeyal Serigne Touba taalibe yi la war a sant kon ñu ko ci sant di wax ni itam woote bi sëriñ baa ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn di ci séntu itam ñëpp ni ko Serigne lu waxee ci tàmbali bi tam loolu nañ ko fas yéene doxale mooy euh, jullig jumaa gi nga xam ne wares na ko ubbi le 18 ak jàmm incha allah te sëñ bi ku ne xam na ni jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ tubaa rek la rek la boole suñu borom fu mu diggalee jaamu yàlla jëf la cay tege. ubudu rabbakum wafalul xayra kon boo boo jaamoo yàlla ba noppi jëf nga cee teg kon nag ñu xam ne sëriñ bi ñaar yooyu la woote liggéey bi nekk nag mooy liggéey bi sëriñ Saliou nekkoon mooy li ko sëriñ Touba bàyyee woon muy yar ndaw ñi ak defar leen ku ne xam ne ne nag daara jooja mbokki taalibe yi ko liggéey ba liggéey ba àgg noonee mënoon nañ ko yéwénal waaye nag liggéey bi daa laaj mbooloo moo tax mu koy sàkk daaray Lagane nag mi ngi féete boo jógee Gosaas jëm Jenne ba tollu Malka sa loxo càmmoñ foofu mooy wet gi jëm ci daara yi Lagan boo jógee Jenne itam jëm Gosaas boo tollee Malka mi ngi lay féete ci sa sa loxo ndijoor yàlla def sëriñ bi nag ci mbaaxam ak ndimbalam defal nañu aw yoon woo xam ne manes na saa jaar ba yegg ci daara ji kon nag ñi ngi séentu ñëpp te wax ne itam safoor si nga xam ne nag ñooy war a indi nit ñi itam ngi sàkku ci ñoom ñu ànd ko dal bu baax ndax sëf mbooloo dafa laaj lool ak teey ci doxin wi ndax ngir ñu mën a ñëw ci jàmm dellu ci jàmm di ko di di ko di ko ñaan bu baax itam di ñaan itam képp ku fa ñëw aaju joo indi yàlla na ko suñu borom faj ci barkeb sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax tam ci taxawaayam bu rafet bi ak liggéeyal bii nga xamante ne si doxinam wi dara wuutali wuuti wu ci ak doxinu sëriñ Saliou ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko lool kon nag ñi ngi séentu ñëpp di wax ne yàlla na ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te lépp lu ñu fa jëf yàlla na ko sëriñ Tuubaa nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Youssou jërëjëf itam Cheikh Ibrahima Khalil woote baa ngi noonu mu jëm ci julli jumaay Lagan ajjuma la 18 waaye góob tool yi saañooy Lagan gaawu le 19 départ bi war a nekk ajjuma incha allahu rabbi sëriñ bi di ci séentu ñëpp nag di ñaan képp koo xam ne teew nga ci liggéey ba yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo àdduna ak joj alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.